oui euh, yes euh, yaa leen gën euh, yaa leen mën doo seen morom ko ki nga xamante ni mooy sang-sang yi Seydina Mouhamed paix salut sur lui ñu ngi wax képp koo xamante ni soppay Seydina Mouhamed nga ñu ngi leen may morceau comme ni ko ami collégien waxee rek yaa ñu gën ndey mais aussi yaa ñu gën baay mais ndeysaan tout le temps rek yaa ñu gën ci lu yaa ñu gën ci fu ne aussi ko ki nga xamante ni mooy sang-sang yi kooku di Seydina Mouhamed en tout cas paix salut sur lui di ko may képp koo xamante ni daal soppee na bi nga ñu leen mais bi nga euh, Ami Collé defno euh, def na ko léegi mais juste après ki nga euh, Ami Collé Dieng dañuy dem seetaaniwaat benen jeune talent boo xamante jen jeune artiste boo xamante ni mu ngi dëkk ba diwaanu Ngaye mais gis nañ ni actuellement ni ngi def lu am solo ci bi nga xamante ni mooy si biir musique sénégalaise mais aussi mo ngi def lu am solo fi nga xamante ni mooy Sénégal mais particulièrement aussi fi nga xamante ni mooy diwaanu Ngaye ñu gis ne tout le temps rek mu ngi génnee affaire yoo xamante nga fan si ñu ngi kontaan sénégalais ñu ngi kontaan animateurs ñu ngi kontaan franchement lancement eh, eh, eh, e mu nekk ndaanaan bu mag a mag a mag a mag ko ki nga xamante ni MC Idji mu indi ñu ki nga xamante ni Nabi ñu dem seetaani ko Malick si c'est bon يا نبي الله يا نبي الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا مصطفى من يوريك لاي توكو سمو خول يولو سوكو fi gën ku la bëgg yokku man yow rek laay topp sama xool yow la sama yow la yow yaa fi gën ku la bëgg nit laa tàggee nu la tàggewul nit laa xaam nu la borom bi xamewul yaa jiitu ci course bi tarawante woo yow mi daan ñëpp ñëpp te bëre woo ku la xam raaw ku la am dootul ñàkk sa leer ga law na fu ne mënu tax a fàq ne la nit di jóge di la wër si Makka ba Medina ku la xam dëgg xam ni sa démb metti na maam Maoda la xaa moom mi taalif xilaas li mu liggéey ci gàmm wane ne amuloo maas Bamba la bëgg lu mu juur yow la ko tuddee li seex na seex saadul abi wax sangu seex Muhammadu Jimbira limaamu laay ak bàyyi wallaahi kenn du ko uutee lépp ngi dooree teg si leeram nga nuurul Muhammad yi boobu dara dara amul lu dul leeruk yaa nabi yow rek laay topp laay topp sama xool yow la sopp doom ju baayam sët bu manqué ay maamam sa taar ba yéeme na barki sooratul yaasin yaa dalal ñi fi raw baasin kenn melul ni nabi te kenn judduwul ni moom palet Kisra ba daanu na sa bisub ju doom ga armée ba tasaaroo te dootul dajaloo lii safara sa fayul woon depuis 2000 ans fay na sa bisub juddoom nga ba defub doom lii rek doy na misaali amuloo ya yaa rasulallah yaa nu jële ci lëndam indi ñu ci leer yaay gën di mindeef amul ku mel ni yow sur terre jirim la woo domi abdallah jaak amina ken amul sa fay yow mi ko nàmpal yaay aliment yaay génn góor dëkkee salaatu alal nabi rek mooy li wóor yoonu jub ak texe yaa rasulallah ya ma doy sa fóor man you're laay up, sama xol yow la sopp sama ruux la nootu yow yaa fi gën ku la man yow có keep Dạy yesa kooko nekk ki nga xamante ni euh, mooy MCEG mu nekk koo xamante ni euh, ndaanaan la euh, ci biir ndaanaan yi mu nekk koo xamante ni ndeysaan mu ngi basé fi nga xamante ni mooy diwaanu Ngaye Mexe mais aussi mu ngi fay def liggéey bu am solo comme ni ma ko ubbee sànq ci émission bi nekk na koo xamante ni mu ngi def lu extraordinaire foofu fi nga xamante ni mooy diwaanu Ngaye franchement ñu ngi koy bëggee di ko jaaraat bu baax a baax di bëggee ki nga xamante aussi mooy Mbaye Babacar Mbaye nee na ma Euh, Kals booy bi nga teg nga waa ji sama la waay la euh, franchement noonu la euh, lay demee tout temps rek dañuy dugg ci biir gox goxaa di fekk fi ñi nga xamante ni actuellement nii ñoo ngi percé wala actuellement nii ñoo ngi liggéey liggéey bu naay ah, sax bu ko defee ñu jéem leen génnee génnee leen sax laay wax teg seen i saaw ni ñi nga xamante ni génnee nañ ko ci toile bi wala aussi nañ ko te bëgg nañ aussi ku ko teg tout le temps rek ñun noonu lañ ci nekkee ah réew mi feeling lay amee ak fi nga xamante ni mooy réew mi TV mais nag morceau bi ñoo ngi bëggee ki nga xamante ni mooy Taf Connection Euh, taf connection fi nga xamante ni euh, mooy diwaanare ñu ngi koy bëggee tëf connection ñu koy bëggee di ko jaajëfewaat bu baax baax di ko wax sound bi nice na euh, lépp li nga xamante ni liggéey nga si sound bi gis nañ ni sound bi nice na clip bi nice na boy bi aussi tegu na ci macha allah di leen wax big di bëggee képp koo xamante ni aussi doomu ngaay mexe nga képp koo xamante ni yaa ngi diwaanu ngaay di def liggéey bu am solo ci li nga xamante ni mooy ci wàllum aar comme que ñoom bo bo bo sa boo bu ñu nee ngaay rek sa sa xel dem ci ñi nga xamante ni mooy dàll yi rafet parce que daal ngaay yéen xam ngeen euh, donc ndeysaan ñun gis nañu euh, ci wàllum art wala ci wàllum culture ñoom dañ ci liggéey lu am solo mais aussi ci wàllum musique aussi ñu ngi ci liggéey lu nice loo xamante ni euh, tey jii war nañ leen indi promouvoir leen yaatal leen ci lu bare bare bare parce que bu ñu leen joxee yoon bi rek yàlla dina dina defar lépp parce que ay ndaanaa dafa nekk ah ay gars yoo xamante ni yàlla xam ne bu ñu génnee da ngay xam ne carrément ay ndaanaan génn nañ aussi di nga xam ne carrément ay ndaanaan ñoo ngi làkku fi nga xamante ni mooy diwaanu ngaay mais bourse euh, bi aussi dañ koy may soppee nabi yi rek ah koo xam ñëpp képp koo xamante ni actuellement ni euh, yaa ngi toog si biir kër di ñu seetaan direct ci TNT bi canal 108 euh, toog ak sa waay ñu ngi may morceau bi nga xamante ni aussi MC Idji def na ko ci ki nga xamante ni mooy sang sang yi aussi ñu koy may ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan via Facebook waa Facebook sama mbokk yi sama xarit yi en tout cas maa ngi leen di bëggee di leen jaajëfaat bu baax a baax ñooñu nee naa la su ma duggee teg balaa may gis kenn ñoom la njëkk a gis